yi mais suñ demee pénal dafa wara a noppi parce que amna na ñoo xam ñoo ko ci ëpp xam-xam dañ koy exercer d'accord ensuite ismaël Madior Fall waxuma la man adina bi ken xamatu ko. ken xamatu ko. ken xamet déedéet. ken xamatu ko. kenn xàmmeetu ko. d'accord donc ismaël Madior Fall. Hmm. si jëmono ji ñu toll. euh nekkul ki exemple Sénégal. li la mëna wax rek mooy man nak comme je l'estime bien dama ko jappé ñaari mbir ñaar Ismaïla Madior Fall mo am le professeur de droit avec le politicien. légui ba tay des si waxu Pape Aligna, Pape lim wax est-ce que demul trop loin. pourquoi. il demande parce que vous dégloo fi mu il est à noter que Quand dehors des épisodes de perte de connaissance. Mhm. Sonko a des propos délits, délirants et incohérents. il exprime le souhait de retourner à la maison de correction de Sébé Kotan, malgré son état de santé délicat, Ah. a ajouté des journalistes. Wow. Ce ne sont pas les médecins qui l'a ce sont les médecins, pas, voilà, ce n'est pas les médecins qui l'ont dit, ni les avocats. Moi, mon n'est un journaliste d'investigation, ah. am ay renseignements yoo xam ni xaw ma fan la ko jëlee. xam fa nga jël loolu mooy di poser un problème. li ma la mën a wax mooy du wax du du du du waxantu mais léegi bon ñoom. attendez attendez li ma a wax mooy du waxantu

Hein, de passif oui Mangi tok serein calme. de non du du du parce que li ma xam. waaw mais alerte ce qui est extrêmement grave moi y a la ba pare y a la terre Sonko am ko dal. mais dana doy waar hein mais moi je xam xam li ma moi mhm. ah, man état ak Sonko je ce que je renseignement yi nga xam ne am naa ko tamu leer tax na je suis à l'aise je n'ai pas de problème. d'accord Abdou Karim li mu wax. am na mhm. source am am ko y a na ko jëlee Abdou Karim Fofana porte-parole du gouvernement bu invité ko invité suñu confrère RFM matin Babakar Fall laaj ñu ko situation Sonko grève de la faim la def mu ne comme tous les détenus jël Sonko classé comme détenu pourquoi ñu veut ko euh, bëgg à part parce que c'est détenu comme xaw ko simple daal. xam nga Abdou Karim euh, Fofana xam nga ces gens là. Euh, moi, j'étais dans le Parti Socialiste. avec ah, est Parti Socialiste J'étais dans le Parti Socialiste. <laughs> tu sais, arrogance, nous cinq Parti Socialistes moi, je les en ce moment. Quand tu les vois à la télé ou à la radio parler, ça veut dire qu'ils n'ont même pas de considération du peuple. Amuñu considération. de considération du peuple. Ça veut dire que nous, nous, wax lu dul dafa leen yomba yomb ba nga xam ni nit yuy jóge xeebaateeg euh, je ne sais quoi daf leen yomb gis nga am na loo xam dara jaru ko ci àddina. Hmm. je vais dévoiler un secret. oui. tout de suite bi ñuy wax ma ak yow. Hmm. avant émission. oui. maa ngi lay wax ni bés bu yàlla defoon Ousmane Sonko euh, euh, falu. Hmm. je serai du côté du peuple. ni ko nag hey. maa ngi lay xool di xool. mën nga seede loolu. ni la bis bu ma gisee lu ma xamul ni ko hey waxuñu woon lii. waaw xanaa booba magi Pastef day changé nekk magi Sénégal. du du nekk magi Sénégal magi Pastef lay doon. magi Pastef bu jaree ma dindi mbubb bi jox ko keneen mu gàddu ko. man ma toog nekk magi Sénégal. di ko seetaan. wallaahi. que hmm. mais mais mais mais euh, mais cest que c'est gens sur ignorer complètement cest sont très une simple. détenu non c'est que il est plus important que toi. il a été troisième dans une élection présidentielle même bu les résultat est